dara gënoon am solo loolu pour nga xam ne moo ñu fi indi donc nos sincères remerciements à tout le monde. voilà dafa nekk loo xam ne day boole xol yi te buñ ko tegee ci koñ mu am lii mag ci ñëw jàpp ci François xel mun na xel mun na xel mun na rafet ci loolu. yes. Yes. Yes, hey. Voilà, encore une fois, on est très très content des personnes qui sont ici présentes pour nous permettre Pour nous permettre de réaliser cette activité, en passant par l'assistance et toutes les personnes qui sont ici présentes, de permettre de vivre cet événement tout à l'heure ma leen koy wax dina match bi nga xam dina dox ci digganteeg euh, équipe euh, bi xam ne moom mooy école bu formation référence école de football mën nañoo wax mën nañoo wax formation parce que école de football c'est pour les bas âges mais bu ñu demee ba àgg catégorie boo xam c'est au-delà de 15 euh, jëm kaw mën nañoo wax ni c'est li nga xam ne moom mooy xale yi am li nga xam sur les valeurs du football xam nan la ñuy doxalee ci terrain ñu jàngal leen les BAB du football et ça c'est très très important ñu leen di kontaane yéen ñëpp. Euh, je me présente Malick euh, fii ci vraiment euh, def naa fi huit ans def naa fi huit ans après bi ma may kër euh, cité fële cité kër xaadim vraiment coloré boobu ba léegi jeexul bi ñu ñëwee nag euh, ñoom fili ñëw gars yëpp ñëw expliqué ma li man leen vie vraiment li bu rafet la bu nice bu nice ci koy quartier bi te bul dara it ma njëkk a félicité fili Fili dali sama presque sax sama frère la Fili Sankharé mi du du jaamur ci man lu ma wax lu ma jàpp xam na ko lu ma dugg xam na ko lu may def xam na ko te du lii moo ñu boole coloré moo ñu boole maa moom mais lu doy waar sax xëy na du ma ko mën wax sax ni bon publiquement nii mais moom xam na man xam naa mais ñu xamul dañuy xëy na ni léegi lay Fili di ànd ak Malick wala non Fili yàgg nañu comme complicité bi ma am nii aw ma ko sax ñi ma bokal ndey ak baay mais moom la rek moom moo baax nga gisee. ma ci sawar a wax c'est que fili moom euh, d'habitude moom euh, moom il toujours comme fili nii la mos mel moo day tàggat ay xale a la yor ba ci nii kon donc lii bu ko defee ci suñu doom yi suñu jarbaat suñu sët yi dañ ciy kontaan bon réussite xale yi lépp ci bokk seen côté carrière seen côté avenir ci côté école beeg lépp loolu da am solo trop trop trop dañ ciy kontaan dañ ci kontaan dañ ciy kontaan trop trop trop trop loolu vraiment vraiment. xale yi moom vraiment encadrement ñoom mag ñi la xale yi lépp lépp lépp ñoom mag ñi leen encadré ci ñoom ñoom lépp. Euh, seen avenir ci ñoom la nekk ci ñoom la nekk. tout à fait mooy li ma la wax rek fii moom wax dëgg yàlla moom moom ci boppam rek. Euh, bu ñëwee euh, bu ñëwee bu ñëwee laaj la sa doom rek ci benn engagement bi mel ni wax dëgg yàlla fii da nga koy libéré sa doom fii moom macha allah macha allah ak bon ak ñi mu nekkal. ak ñi mu waaw vraiment maa leen di gërëm yéen ñëpp tamit bon di leen remercier bon <laughs> xaw ma sax man xaw ma ma wax ci ay ji bi mais vraiment kontaan naa trop trop trop merci. maa ngi tudd Fili Sankare dëkk fii ci quartier bi ñuy wax Sampathé 2 euh, nekk président école de foot renaissance du football futur football africain. waaw man naka jekk ba ku ma xam daf may xam ci ci ci ci sport ndax man quartier bi euh, fii laa juddoo yaroo fi màggee fi euh, def naa fi lu nekk ci sport donc man football daf bokk sama man daf bokk ci man. Euh, gis naa ni pourquoi pas quartier bu Buur mën a am école de football comme yeneen quartier yi euh, xale yaa ngi fi xam nga am nañ talent xam nga léegi nag loolu moo tax ma inspiré wu ne man vraiment war naa mën a créer benn école de football fii ci koñ bi su ko defee xale yi di ci tàggatu di ci mën a jàng football en même temps di ci mën a jaar di am éducation yaru xam nga ñu mën leen teg ci condition yu baax pour seen avenir ëllëg. ko en tant que l'un des initiateurs de ce projet tey jii lan ngay wax parents d'élèves yi nga xam ne bàyyi nañ seen doom tey ñu ñëw bokk ci waaw parents d'élèves yi li ma leen wax mooy ñu gën ñoo jàppale dimbale ñu te xam ni euh, football bi dafay dimbali seen doom ci seen carrière ndax sport étude la ñuy wax fii bañ nañ ko boo xale buy fi football dañuy jéem a euh, veiller say say say sa jàng si école bi nga nekk di jàng dañ ci jéem a topp di dox di wax sa bulletin bu ñëwee dañ lay dañ la koy laaj nga wan ni ko ñu boo am boo boo nekkul xale boo xam ne boo nekkul bon élève dañ lay dàq boo nekkul élève bu baax ñangoo jàmbaare nangoo nangoo jàng dañ lay jëlee ci école wala ñu sanctionné la xale bu fii nag dañ ne la ku fi ne dangay ngay jam ay moyens yu baax ba pare en même temps nga am respect ci ñëpp respecté seen kër respecté say waajur lu la digal nga def ko lu la tere nga bàyyi école bi nga nga fonk ko ndax école moo mooy jiitu école de foot bi étude après sport waaw da ngay dangoo jàng nga doog mën nekk ci école de foot bi nekkoo meilleur élève nangoo jàng nag moom ñu écarté la waaw léegi dañoo bëgg loolu comme am na parents yoo xam ne xamuñu ko ñu xam ne fii ñun dañ fiy nekk pour dimbale xale yi duñ fi nekk ñu fi pour pour pour ñëw di football rek dañuy nekkaale yaraale éducation xale dañ koy toppaale ñu xamal leen loolu parent boo xam ne am na élève boo am na sa boo xam ne mu ngi jàng amul ay moyen yu baax ah boo ci mënul dara ñëwal nga wax ñu ko waaw boo ñu ko waxee ñun dinañ ko sanctionné mu toog ba pare incha allah comme moom xale moom bëgg na football su xam xale su xam bëgg na football bi soo loo ko def loo rek dina ko def waaw loolu moom moom moom mooy li jiitu quoi ci xale yi xale yi nekk ci école de football bi dama leen di ñaax pour ñu gën a respecté seen njàng am yar respecté seen parents yi respecté école football bi ndaxte football mën na mën na dem léegi dafa jéggi dayoo ci àdduna bi parce que pourquoi pas mun fee génn ay ñoom Sadio Mané ku mel ni Sadio Mané war naa mën a génn fii ku mel ni El Hadj ku mel ni Fadiga Villefranche Bocandé ñun ñëpp war naa mën a génn fii dama leen wax ñu góorgóorlu xam ne football bi kenn moom ko travailler da ngay liggéey yàlla may yàlla fay la soo liggéey liggéeyul nag wax dëgg fa yàlla doo am maa ngi leen di ñaax ñu góorgóorlu ci école de football yi góorgóorlu seen njàng bi respecté ñuñ seen waajur yi waaw loolu daal la la la laa bëgg ci bi fii booy ñëw dañ lay laaj euh, inscription 5000 boo joxe inscription 5000 ñu adhéré la nga dugg léegi nag mensualité 2000 lañ koy def waaw 2000 lañ koy def ñu ngi tàllal lépp loxo di tàllal nag nit ñi nga xam ne surtout ñi tuxu si bees ci quartier bi ñu jàppaleen ci ci ci école de foot bi te xam ne école de foot bi pour ñun pour xale la seen doom pour avenir koñ bi la ëllëg ñoom buñ ci jàppee mun na yàlla mun na def euh, ñoo am ay te pro rek ci quartier waaw loolu laa xam am na catégorie u ba ba U15 am na 8 ba 15 waaw am na 8 waaw école euh, loo gis xam nga ni Sénégal dara dara yomb fi loo gis day métti amoon nañ ay difficultés yu bari pour taxawal école de foot waaw amoon nañ problème matériel problème finance lépp mais ñu koy soox ndànk-ndànk rek waaw ba yàlla dimbali ñu am ay ñun ñoo xam ne nag vraiment ñu baax suñuy nit démb ñu baax ku mel ni Malick Boré ñu suñu grand nekk frère comme ni mu ko waxee rek man dama bokk ci moom moom daf bokk ci man lépp lu muy dugg dama koy yëg lépp lu muy dugg da ko yëg xam nga mu nekk ma jàppale tamit nekk tamit ku baax boolem xol bu rafet lépp luy dugg ci koñ bi mënu maa xam mën du ah, euh, école de foot bi rek mais lépp loo xam day am ci koñ bi dafiy dugal loxo mu nekk grand bu baax quoi moo tax man mënu ma dugg lenn te dugaluma ko ci loolu moo tax di remercier yàlla ki ñu wax jibiloo jibiloo aussi may nañu ay ballon ak ay ak ak ay dossard xam nga di remercier tamit ki ñuy wax Sow ak euh, ñoom grand di remercier waa koñ bi yëpp di wax ni ñëw jàpp ci école de foot bi ndax école de foot la suñu jarbaat yi suñu rakk yi suñu sët yi. salaamaaleykum gars maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la Mamadou Ndiaye euh, mën naa ne je le président la commission sportive de Xale yi Sampaate 2 euh, ñëw fii itam ci turu ASC di membre di parent aussi parent d'élève ci école football bi di membre aussi fondateur ci école football bi aussi. kontaan ak euh, vraiment fierte ak euh, satisfaction parce que lii euh, koñ bi mënul dem sans lii itam mënuñu wax sport te amuñu école donc dafa nekk benn affaire boo xam ni c'est venu à son heure parce que lii day permettre at ASC bi gën a rebondir bu ñu jógee ci victoire bi ñu amoon di près di vainqueur de la zone cinq b ñëw itam tey ñu inauguré école football vraiment day wane ni quartier bi mi ngi intéressé wu de jour en jour ci sport bi en particulier ci football. ñi ngi remercier itam initiateurs yi bu baax a baax a baax en la personne de Fili ak euh, ñi koy jàppale ñëpp vraiment ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier di leen di leen ñaanal yàlla li ñu bëgg ci école bi yàlla may leen ko. waaw école bi li tax ñu gën ci sawar euh, comme ni ko samay prédécesseur prédécesseur waxee école sport la école étude sport te vraiment ñun en tant que éducateur. loolu dañ ciy sawar parce que ay xale euh, vraiment boo leen dee dajale euh, sport euh, étude bi jiitu sport bi topp ci vraiment koo ci woo dalay ñëw say sawar pour ñëw jàppale la man mi di wax ak yow sama doom mi ngi ci biir doomu keneen keneen mi ngi ci biir tey ñi ngi def propagande boo xamante ni vraiment koñ bëgg na ñëpp képp ku fi am xale au lieu muy taxawaalu mu ñëw nekk ci école bi ñun tam en tant que éducateur on va essayer de voir vacances yi mi ngi ñëw Euh, en collaboration ak école de football bi ñu ngi xool naka la ñuy organiser ay cours de vacances yoo xam ne dañuy renforcer le matin ñu defal leen ay cours le soir ñu ñëw entraîner loolu yëpp ci développement école bi la ci initiative fili itam parce que fili quoi qu'on puisse éducateur la moom déjà te ma au passage ñu ngi koy c'est le premier entraîneur à amener une coupe dans la dans dans notre quartier donc kooku ku mu ñëw laaj sa doom ni la dara koy encadrer vraiment da nga ciy sawar bu baax a baax a baax a loolu daal vraiment ASC bi yëpp ñu ngi ci ginnaawam ak ñi mu àndal ñëpp vraiment du ñu lim parce que bu ñu limee dañuy ju mais ñoom ñëpp ASC bi koñ bi parents di parant yi gis nañ liggéey bi ñu abaat ñu ngi leen ci remercier bu baax di leen ci ñaanal amuñu seen fay. en tant que dirigeant ASC Xalé Sampathé tey jii ban appel ngay lancer ci autorité thiessoise waaw bon damay commencer ci suñu délégué de quartier jaar suñu maire parce que lii. Eh, olof Ndiaye damay dégg mu naan benn lam du yëngatu te comme que taxaw na ba pare vraiment ñu ngi leen di lancer appel pour ñu ñëw jàppale ñu eh, parce que du lu ndaw vraiment ku gis terrain bi tey ni mu mel gis nga présenter trois plateaux de catégorie yu ndaw mm, eh, vraiment du lu ndaw ñu ngi leen di lancer un appel solennel vraiment ñun tam aussi démarche bu ñu ci war a def incha allah dinañ ko def pour ñëw pour fëgg seeni bunt vraiment ñu ngi leen tànn seen loxo suñuy loxo. di leen ñaan daal ñu ñëw vraiment pour ñëw jàppale ñu quoi. ok euh, di santaat di gërëmaat waa koñ bi euh, présence bi fili euh, initiateur bi ak le parrain monsieur Malick Boré ñu ngi koy remercier moom itam vraiment parce que sans moom itam vraiment dina dana gën a sooxe di remercier waat aussi waa koñ bi quartier bi. Eh, di leen wax ne daal ASC bi mi ngi ci ginnaaw école de football bi école de football mi ngi ci kanamu mi ngi ci kanamu ASC bi pour dans le bien-être du quartier merci beaucoup